ñu ngoro la nga baax ñu takk la nga baax bi nga yang see nga gën a bon sëy si nga ci kër gi yëngal kër gi ñu nañ bu bon dañ faxas yëngal kër ga di kota dëbb ba ak bajak di jaxase kër ga du raxas tilim salte dur sang ba xaalis na bëgg bu toggee añ moom lay yàqee reer ñu hmm. ko kër kër ci biti lañ ko doo xam kan la yow mii la yéeg bu bon bi. waaw léegi lan nga lay defee. waaw léegi bu bon la nga lay defee. bu bon la nga lay defee xamaloo ma dara de xamaloo ma dara de. na nga rek ngeen yow lan moo la fa jëlee yow tamit. mu la jël de. ma ko waxaat day day day jël si ginnaaw ba yow. ah bëgguma li may def daal la yow bàyyi bu ñu waxee dara nga ñëw si ma ko naan ma yow la dégg nga. xamaloo ma dara nag dégg nga li ma la xamaloo ma dara de.